lulundak na jamorek jamorek yang simban hmm. apa kamu mau ada ada ngayo tok jafe-jafe waaw ak gino sax toog ak gino gal sa tubaab bi mos toog maam mi ngay feeñ bëri ñu garo nag ñun ku dina feeñ ku leer na sa lii lu zone li ci ko rek mooy ah ñaareel bi rek moo fi nekk nag dina feeñ nag ah. yéen a baax na kii boo ko defee kii bu ñëwee jël jël jël doon teg teg toogal boobu kii bu ñëwee jël. lagi, Oumba genum ni la yaakaara ne da ngaa wéet na maa wéet am koo wéetale waxi bugaana ci li soxada to kaga yaakaara ne ajabu kana deg debe heure bi mbaa kana deg ko lo yam sa te yow de tan nga danaka fukk li nga def yaa ñe de nga xay daate ba do do ba jobale wa de sa wat nga ane no wala legi rek ñaaje ñaajara ñaajale lay rang fi ilay parce que bu dee da ngaa àddina solo i àddina jege solo mosu rek foten jegoo njiri yam o ɗeeta nga wiina maɗan faɓaɗanoore o yakarame o leng fiye roog ka taxna ten wen ndefna mene fiyane roog ka taxna te waala donc yakarame allah jegu solo machallah a poñe doloxidna meen pok uga ga'oona ke jegoona meen ya la o yaal a barke an roga doon teen o ɓay barke alquran vraiment ino osi i njegee ka i layna nuun yaam à tout moment we kam nuun ne kafa fa in jala mbiya fa in nu refna vraiment ino osi i content a paax a paax content na nuun machallah parole

man maa ñaar biir si koñ bi te bëgg naa heure bii déwén. Mhm. ñaar yëpp ñëw ku amul danga am. waaw yaa koy wut. kaa mhm. ñëpp koy am. yaakaar naa ne boo ñàkkul fay dem maam Sakho. Mhm. war nga fi am ñoo xamante ne. ay ñaareel la ñu doon comme yow. man ñàkk ma fayda heure bi déwén kay boo ñëwee. da nga fekk ñaar am pagal. dinaa jox ñaar ñaata ñaareel pardon ñaata nga yaakaar. ñaata jaal dana am. Oumé dana am Ndiaye Moussa dana am. ak Sadio Bob. déwén koñ bi dina ko mën. fukk lay def. waaw moom ñoom

waaw mosuñoo werante mosuñoo def dara ñu ci jàmm ak salaam di kafa ka ree suñu yaa suñu yaay bi yaakoon ñu jiit jiital ñu waaw baax torop waaw amul benn problème yaa ñaan na ko toppal man maa la gën a lii ñu ngi noonu daal ngeen daal te amu seen fay daal waaw loolu am lu mu si wax macha allah sa kaddu rafet na waaw ma say kaddu rafet na waaw gis nga Sadio yow la ñuy jox parole ginnaaw bi la nuyoo yow tamit jaare la bu baax

lu ma liggéey si non beeg. gannaaw ba nga duggee si kon bi ba tey. gi dafa làgg gi dafa làgg a dëgg julli. ok mag yi nga xamante ne ñoo nekk yi nga xamante ne ñoo nekk dañoo fekk la nga ko yore nga di togo ma door bi gara nga tekan ne nga la ni ne ni ko xop nda gi ona ando ka mi dana mi na mi na tu mi na lu sukuran ah sampo ne ne ko nda a foofu lan nga ñu mën a wax daje ji nga xamante ne naa loolu jàmm ak ko waral parce que bu jàmm amutoon yaakaar naa ñun ñëpp dañ fi a daje di fi yenn di bokk même añ bi di xàccandoo di dóorandoo. bi moom ndaje jàmm la rek. parce que buñ ne buñ dëggul woon si jàmm duñ demlante si jàmm duñ waxante si jàmm ndaje bi foog naa dina mun di am chaque jour waaye xam nga jàmm lay dëgg moo tax ndaje bi chaque année day am te dañ ko gën a mu continuer ba suñ suñuy set ak suñuy setaat daal képp ku ñëw si na nga na nga na def ndaje bi même ñun duñ ko fekkewul sax ndaje bi nga ko def ko olof yàlla ngeen fekkee lépp yàlla ngeen fekkee lépp Sémou. waaw Sémou Diouf. macha allah. le directeur général des menuisiers. la bu mu defarul baax. armoire bu mu defarul baax macha allah. waa fa bu mu defarul mel ko. loolu leer nañu parce que ñun yaakaar na am na loo xamante ne mooy

waxal rek sama doom baay nga nga wax noonu la loo bëgg wax noonu mel ni roqi rek may mel roqi mu poxa rek wala wala yaa séeréer poxa rek mu rek allah wani ko xor fa koy amin wacca amin macha allah li ngeen di gis nii te tournel ma caméra bi jëlal ma gaay jëlal ma ko cat ba cat li ngeen di gis ñu sol nii sama doomu baay bi bu muy borom ciseau d'or moom moo ko dóor gis ngeen ko lu mu ñawul nag baaxul tabaski bu jotee ku ci am ñaw indi ko jox ko ko mu kubbal la ko lu am jom gis ngeen ko waaw gis ngeen ko yëpp moo fa jaar yal na ko yàlla lafal cat atelier bi yal na doon ay atelier atelier yal na toog ba naan sama gaa yi dagg leen di ñi ñëw di dagg yàlla mun na ko yal na ko yàlla def barke Seydina Muhammad muy macha allah affaire yi rafet na torop parce que nga nekk ak say naataango ci koñ bi liggéey lii li ñu teg ci seen bët ah du ñu def lu dul di ko rafet waaw dañ nga ñu mën a wax ci seen goro bii nga xamante ne tey moom moo nekk ak yéen ci kër gi. aleeroog soma waasit kaaxe andoona ye ten fo o seemir yaakoor fa yaakumba fa may muna

fii la di xewee lépp loo xamante ne tey jii rek na leen rek ngeen dappee mbulum jënd da ngeen koy jot muy làmb muy xew-xew rek ak rek di day xewee. macha allah ñoo leen gorom bu ak Biram Diouf.

Sama maa ngi sëy sama waaw kooreen sama jantal men boobu sama koor ñu gën ko xam si taximaan sama nijaay di liggéey si pharmacien bi waaw fii ku fi ordonnance am nii rek moom moo koy dem jël moo koy dem jël si indil la ko ba sa galle nga toog di ko xaar damay ñëw toog mhm. paa bi ak mère bi jënd warga mhm. ñu teg caay bi chaque jour ñoom ñooy jënd nag dana mhm. leen des fois ñun xale yu ndaw lañ moo la ñu xaar ñu ñëw jënd warga jox leen mais ñoom ñooy jënd warga du ko jox yukoyna chaque jour kon di leen di gërëm di leen di sant leen di ñaanal yàlla may leen wérgu yaram ak gudd fan koñ bi yàlla ñu yàlla ak pexeb koñ bi allah ku nekk da ngay wax sa morom lu neex waaw man moom kañam roqi moom ñooñu samay seen jëkkër yi ñooy samay doomu jaay waaye jabar yi dama leen ci dugal di ñaanal sama yaay di ñaawul bi di bopp ay magam ay fan yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam kanam sama xol nag dafa fees sax ah macha allah mooy wax ji rafet na rafet na trop macha allah. kaw yi ne